waaw ñu ngi leen di jaajëfal tey le 8 mars fii nga xam ne mooy ma central avenue Général de Gaulle ñu ànd ak site bi nga xam mooy RTT ñu nekk site boo xam ne tamit ñoom lépp luy événementiel dañuy ñëw ànd ak kii mu nekk loo xam ni wax dëgg yàlla ñun dañoo am mbégte ci ñoom jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk Marché Central avenue Général de Gaulle wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu boo gisee suñu jigéen ñi taxaw da ngay xam ne jigéen i jàmbaar lañu ay jigéenu Talaatay Nder lañu wax dëgg yàlla tey xol dafa sedd ndax Marché Central jigéen ñoom ñoo fi ñoo fi ñoo fi nekk di bay seen waar di daan seen doole di dimbali seen borom kër kon dama bëgg rek nga topp ma ñu ànd ma laaj leen bis bi tey asalaamaaleykum tey ñi ngi ci journée de la femme muy 8 mars jigéeni central ban taxawaay nga gis ñu def ko ci tey waaw taxawaay bu rafet ndax ah, jigéen amul jigéen sax dañ koo war a honoré bis bu nekk la war la war la am parce que jigéen da di xam ne surtout jigéenu marché yi ay jàmbaar lañ ñi ngi xëy sa fajar di guddee wàcc dimbali seen borom kër yi si liggéey beeg lépp ñu koy rafetlu daal. waaw lan ngay wax sunu yaay yi nga xamante ñoom ñoo ji Smart Central ba tete leen ci lii ñu jàngal leen jom ba ngeen nekk tey nii di continuer jom ji tey muy wut mars ñuy sargal jigéen lan ngay wax ci mag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Smart Central. rek nii leen di wax de xanaa di leen ñaanal di leen wax ni seen taxawaay dañoo yàgg soutenir xale yi ci marché bi ñi mujjee ñëw ñëpp ñu ngi leen di teg ci yoon di leen wan ne jigéen amul lu dul boppam jigéen amul lu dul xëy di daan dooleem ndax jigéen baax na góor baax na di leen si ñaanal nag yàlla bàyyi leen suñu kanam ñu teet ñu ba ñu gën a miin yoon bi waaw macha allah yéen a ko yéen ko déggandoo gis sama jarbaat bi li mu wax tey ci jigéenu marché central avenue général de Gaulle ñu ànd ceeg li nga xam ne mooy RTTS RTT mu nekk lu am solo tey ci marché central. waa tey ñu nekk marché central avenue général de ñu fekk fi sunu yaay yi nga xam ne dañuy fajar la ñuy jóg di guddee wàcc muy tey muy bis bi nga xam ne dañuy sargal jigéen kon tey bu nu ñëwee marché central war nañ leen laaj bis bi ban jàngat ngeen ci am ak lan moo tax ngeen def lii tey. kontaan nañ torop macha allah ndax jigéen ñi am nañu jom ndungu ndungu liggéey góorgóorlu suñuy bébé góorgóorlu suñuy borom kër ñun daal macha allah daal jigéen ñi daal macha allah moom waaw góorgóorlu jàmbaar lañu daal macha allah waaw. est-ce que jigéenu Mat Central ñoo bokk ndey bokk baay. ñoo bokk ndey bokk baay moom dëgg ndax ñu wane na ko ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay ñooy xëyandoo di wàccandoo kontaan bu añ jotee ñu ñëpp a bokk añ waaw añ bu la neex nga sukk añ te bu woon ne bu ñu bu ñu dugal woon loolu du mën naa bañ a nekk xam nga waaye añ bu la neex ngay sukk añ kafree lépp man lépp daal neex na macha allah daal. léegi boo leen di ñaax boo leen di ñaax lan nga leen di dolli jigéen ñi sant na. xanaa ñu gën a rek. ñu gën a góorgóorlu moom macha allah te kanam te kanam rek gën a góorgóorlu rek liggéey rek ànd rek macha allah. waa macha allah yéen ko déggandoo. waa tey ñu ngi ni jàkkaarloog sama yaay ji jomba ñaawul ji nga xam ne tey moo nekk ma central wax dëgg yàlla book ci yaay yi nga xam ni jom rek lañu xam ci ñoom tey lan ngay wax sa doom yi ak lan moo waral bis bi tey. salaamaaleykum. waa Sénégal salaamaaleykum waa Thiès ñun waa marché central jigéen ñu am jom ñi jigéen ñi takku di liggéey si di xëy ca suba bala ñoo wàcc di ngoon am fulla am fayda am maa ngi sargal ñëpp képp koo xamante ni jigéen nga rek te nekk ci marché bi ak képp kuy góor doon sunu càmmañ wala ngay sunu doom wala ngay sunu nijaay ñu ngi lay sargal di jaajëfal nag mag ñi nga xamante ni ñoo nu jiitu woon fii ci marché bi di leen ñaanal yàlla. yal na yàlla gën a yokk seen i leer ñu jiitu ñu fi des yàlla bàyyi leen fi ñun ñi yàlla bàyyi nu fi bañuy sunuy doom jël sunu relève kontaan nañu ci ñëpp ñu dañoo bokk ndey nag bokk baay xuloo wuñu waxunu werante wunu bu gisee suñ mobilisation rek nga xam ne que ñun ñëpp benn lañu maa ngi jaajëfal ñëpp nag di kontaan ci ñëpp di ñaan yàlla sunu journée bi yàlla ko def ay ati ati at ci barke kontaan naa ci yéen kontaan naa ci ñëpp wasalaam. waaw yéen a ko déggandoo sunu yaay mi ngi noonu dégg ngeen li mu wax ci bis bi nee na kontaan ne lool ndax 8 ma tey dañuy te sagal jigéen waaye ñu nekk ay jigéenu Talla Tender nekk jigéen ñu jàmbaar nekk tey di féetewu wax dëgg yàlla. la marché central mi ngi nii avenue général de Gaulle mu nekk lu am solo tey. waa tey bis bi loo boo doon wax tey lan ngay wax ci bis bi le 8 bi nga xam ni da ngeen dajaloo tey nekk avenue général de Gaulle di jigéenu marché central lan ngay wax sa moroomu jigéen ñi ak lan nga leen di ñaax tey. asalaamaaleykum waa marché central man day lay maa ngi leen di nuyu leen sant di leen gërëm di waa marché central bu baax ndaxte mënoon na leen a ñuy xiiroo ko ŋaayoo waa de marché central dañoo ànd doon benn boo xoolee ni du mobiliser woo rek nga xam ne marché benn lañ dañuy xëy di teel a waaj guddee waaj di kontaan torop di gërëm sunu délégué de marché di gërëm moom Fall macha allah di gërëm Fall di la gërëm yow nii jàpp ngeen ci bis macha allah di gërëm marché central tamit sunu jàmmi nii bi caamini muy jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen joo xam ni ku nangoo jàppale borom këram nangoo sonn ci marché bi am jom lool nangoo liggéey di daan dooleem nekk nit koo xam ni ku bëgg lu baax la ma koy ñaanal gudd fan ak wér ndax sa taxawaay dafa am solo di la ñaanal jàmm di la ñaanal salaam. ñàkk I'm good. xam ni danoo ne ci kër di jàppale seeni i borom kër di ñaan jigéen ñi yàlla leen suñu borom gën a jàppale yàlla gën a la may ndam ndax taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw nañ ko ci mag central waa di jaajëfal ki nga xam ne mooy Ousseynou ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax ndax ku fi baax ku fi baax jigéen moo la jur jigéen moo jur xutbu moo jur waliw ndax jigéen lu jar a la jigéen lu jar a la jigéen lu jar a téye la kon moo tax ma ne képp ku jigéen dama bëgg nga tàj sa bopp bu baax a baax a baax a baax ndax adduna dem te jigéen nekkul ci biir rawatina ajaratu mat leen Diagne moom mi nga xam ne dafa ànd ak docteur Ndiaye yaay Ndey Mbaw ak mbendooy jàppale seeni borom kër kon yaakaar naa ni lii su ngeen koy def ndax fecc mi neex na tëgg mi neex na waa jigéen ñi dañoo nekk ay social jigéen ñu am jom nangoo liggéey di daan seen toole moo tax suñ tollee ci bis bi war nañu waxtaane luy jëmale marché central kanam te xam naa ne buñ ci jiitalee jigéen ñi dina dem ci kanam ndax jigéen béccee lu jar a fonk la. kilifa dafa egg si ma ngeen tàcc ko bu baax Baye Thierno tàcc leen ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. parce que yow féete marché central nga féete Thiès waay nga. kon yal na la yàlla taxawal bu baax gën laa jàppale. di nuyu ñi fi teew ñëpp ñi bëggoon a ñëw ak di ñëw ak ñi amoon yéene ñëw ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp particulièrement rek jigéenu Sénégal ak jigéenu àdduna di leen wax ne bis bii tey yéen a ko sargal di bëgg seen bopp. ginnaaw bi ñu ci loolu dañuy sant suñu kilifa yi fi toog. di suñu ak suñu papa yi di sant suñu invité yi toog di jiital di sant bi suñu président suñu délégué général di Thierno Ciss di nuyu bu baax ki nga xamante ne nii mooy Ousseynou di sama jumeau sama jumeau la parce que lépp lu ma nekk su dul yéeneen sax si ànd ak man kon kooku dama koy ñaanal di ko nuyu jigéen ñi marché central yéen ñëpp la di wax ne tey bis bii ngeen def nii ah. yaakaar naa ne soo wëree Thiès ba mu daj ah. marché yi fi nekk yëpp tey jër ngeen daw gàddu gi ah. kon dañuy ñaan yàlla musal leen ci seytaane ba li ngeen bëgg suñu borom defal leen ko toogaay bii ñu toog fii mu doon toogaay boo xamante si nii incha allahu rabbi déwén ay biir màkk moo fi jëm yàlla mën na ko te dinañ ko def te su ne mën nañ ko nekk dinañ ko def te incha allahu rabbi dina am di nuyu nag ñi nga xamante ne si nii danoo jàpp ci bis bi si nee ñu jàpp ci bis bi mooy jigéen ñi toog yéen ñëpp yéen a xotti seen bopp yéen a solo seen bopp tey su leen neexoon ngeen di tey li may def am na feneen fu mu def suuma kër mais da ngeen a xool da ngeen suul kër parce que su dee jigéen ca waalo rek yéen ñi yéen a tax da di teel a xëy du guddee di jàppale seen i borom kër xoolal leen am ak lu ñu ñàkk loo leen am yóbbu ngeen ko ci njaboot gi ak ci kër gi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm a baax. di nuyu ilo A ilo B ilo C parce que. marché bi dañ kaa defar mu doon 4 kilos kilo bu ci nekk am na représentante am na représentant te yaakaar naa ne daje bii kilo yëpp a booloo doon benn bokk ndey ak baay di jiital la kii li nga xamante ne si nii yéen jigéen marché central daf ngeen ko mu rafet parce que lii dafa rafet. lii c'est l'union qui fait la force lii mooy mbooloo te mbooloo mooy doole kon yaakaar naa ngeen jigéen ma santal taxawaay bi ngeen taxaw loo leen bëgg tey si si Thiès ak si marché central war nañ gaaw kon dañuy gàttal kàddu yi rek dañuy gàttal kàddu yi di wax ni ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax ni sant bu am commencement muy am fu mu yem. waa Bëgg Jaay ñoo ngi nii toog waa maire waa waa waa maru maire maire PPI sama ñoom maire yaay Ndeye Thioune ñoo ngi toog soo xoolee. Mbaye Mboude ñoo ngi toog soo xoolee ñoom a jàng ñoo ngi toog ñeneen ak ñeneen su ma limee damay jub te yaakaar naa ni damay damay suli damay suli ñu ne daal di wax ni yéen ñëpp yéen a ngi toog kon dañ leen di ñaanal yàlla ñu yàgg a fekk ay ati at ñi nga xamante ne si bii daal dañ fay nekkoon. te ngeen uy fi ren di ñaan suñu borom jéggal leen taxare leen àjjana ñun ñi fi des ñun sëb leen fan te yàgg leen a ñaanal ci barke Seydina Mouhamed su mu doon loo xamante si yaakaar naa ni dina gën a doy waar lool. yàlla dafa jël àdduna ak ni ko ponke mu jaarale ko ci jigéen ñu déglu waay nit ñi xamante ni ñoo gën a sell ñoo gën a tedd muy yonent yi muy xutbu yi muy wàlliwu yi yi nga xamante ni borom dara yi ñoom ñëpp jigéen moo leen indi ci àdduna kon donc tey jii ñun dañu war di célébrer chaque jour journée de la femme kon buñ ci jëlee journée 8 mars exceptionnellement dinañ ci célébrer di ci célébrer suñuy yaay di ci selebre suñuy rak di ci célébrer suñuy mag soxna mu naa ne loolu mbégte la war a doon moo tax Madeleine nee na bis bii yàlla nañ yàgg di ko teewe at yu bare te at bu ñëw rek dàq te incha allah bis bu ngeen ñëwee yëkkati ko def ko lépp luy man-manam lépp luy dooleem lépp luy kàttanam dina ko jël def ko ci ndax nag cër bii cër gënu ko rek ndax Cees yaatu na autorité yi bari nañ fi lool kilifa yi bari nañ fi lool soxna yi bari nañ fi lool kon bu ngeen jëlee taamu ko ci bis bu mel nii ci bisu marché central ndax marché central ñëpp xam nañ ñi fi nekk ñëpp ay jàmbaar lañ ay ay ay garmi rek ñoo fi nekk donc te bu leen neexoon tànn fii ci biir marché bi ñu koo xamante ne mooy Marème ndax ñi bi nekk ñëpp ay jàmbaar lañ ma xam ci ñu bari ñoo xamante ni mën naa leen a lim kon bu ngeen jëlee taamu ko def ko marraine loolu lu rëy la ci moom bég na ci lool kontaan na ci lool leen ñaanal képp koo xamante ni teew nga fi yàlla may ñu teewaat koy at yu bari te at bu ñëw rek dàq incha allahu rabbi comme ni ko galas waxee ñu dem ba yeneen 8 mars ciy tiire ay billet màkk jigéen ñi di dem di ñëw wala di ci tiire ay yeneen i billet yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñëpp wa salaam leen Diagne dafa nekk si ginnaaw docteur Diagne di jàppale ay xaritam di jàppale ay jegeñaaleem kon Fallou ana Fallou ba Thierno yaakaar naa ni kado bii ajaratu mat lañ lañ koy jox ci suñu ndigali kilifa délégué ba Thierno Ciss ñu jox li ajaratu mat lañ ñu deppi ko jël ko lii ajaratu mat lañ moom moo ko moom ndax jëf durée nga xam ne jëfal na suñu jigéenu ma central borom gërëm bu yàggul rek la ñëw réceptionné suñu toilette yi tey suñ ko tuddee bis bii ah macha allah tey eh, lii na de tàccu leen lii bu baax a baax a baax ah. waaw bu kër ma daaru laa bëgg rek ku ma ci dimbale ñaar téeméer yi ma passé. waaw ñaar téeméer yi ma passé. loolu dafa dafa suru xol ci ma passé. waa Thierno. yal na yàlla may mi ngi nii. yal na yàlla may jàmm kërëm nga xam ni social bi mu koy def. booba yàlla mayu ko dombal tànk. docteur Ndiaye. ku ne xam na ni. son excellence da ko jox ko li nga xam ne mu yilif chemin de mu nekk ministre waa yàlla mi dogal moom la ñu gisee train bi daw ci ay loxoom ci déglu son excellence président de la république wóolu ko ni ko docteur yow yaay doxal te ku ne xam na ni bëggoon nañ train bi daw waaye ci loxol docteur Ndiaye la ko jaare di gërëm Malick Ndoye moom mi nga xam ne tamit DG bi la ku déggal docteur la docteur ku ne xam na ni jigéen ñi nga xam ne dañoo tollu diggante dañuy ñëw ci moom mu leen defal visite gratuite kon docteur Ndiaye dañ koy ñaanal gudd fan ak wér waaye Adjaratou Matlé mii jàmbaar la ku jàppale docteur la ku taxaw docteur la ndax taxawaayam bu am solo bii ci biir kër gi nga xam ni mi ngi ci ànd ak gor si bi docteur Ndiaye. waaye Baye Thierno Ciss ñu ngi lay jaajëfal ñu dox la kàddu nga dugal ci ay kàddu rek ci kàddu yàlla ak mbaaxam. barki démb boo jaay lan ñu jàpp police yaa ñëw jël si ñu yaa tee demuñu tribunal Père Thierno yàlla sa jàmm yàgg Père er, yàgg fi loo fi gën a yàgg muy gën a neex ba yàgg fi. Er, assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp góor jigéen mag ak ndaw e nuyu bi jiital ci préfet département de Thiès mooy Mame Less Kabou ñu koy gërëm bu baax di ko sant di gërëm sous préfet Jean Nour Sy ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax di gërëm commissaire central Aïssata ak commandant ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm aussi maire de la commune Diomno parce que bis bi biñ fi ñëwee wax leen ko ñu xamal nañu ni jigéen ñi ñoo aye jigéen ñi ñooy suñuy yaay ñooy suñuy soxna ñooy suñuy bàq ñooy suñuy rax kon lu ñu aye kenn du leen ko mën a gàntal nañu bay ñu loo xam ne benn fan rek ay quelques heures dañ leen bay jarul sax yenn yi kenn ko yëg nañ ko rek bépp matuwaay dañ ko jël kon moo tax ñu leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax leen sant bu baax autorité yoo xam ne aussi dañu ñu seen i buntu dina jokkoo ak ñoom démb maa ngi jokkoo préfet de Barra 18h30 ñu waxtaan ci déggoo ci incha allah moo tax eh, suñu xel dal na parce que autorité boo ko amee yàlla nga am soxla taxaw ci ñu koy gërëm bu baax di gërëm aussi seen marraine soxna Mat leen ñu koy gërëm bu baax ak borom këram parce que borom avant lii yëpp woon nañu lu jiitu ay at ci ginnaaw kees yëpp kenn ku ne la wax nga soxla bi ñu ko soxla suñu problème de toilette lañ ko waxoon bi mu ñëwee dañuy taxaw kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla taxaw ko yéen jigéen ñi rek ma central am na kaddu yi parce que timis jot na parce que kaddu yi di mën a gudd jigéenu marché bi li fi gis tey wax naa ko fallu daaw bi ñu génnee ci 8 mars man leen fexeel wax jigéen ñi ñu dajale seen bopp booloo doon benn lu ñu soxla marché central ci amuñu ko ci ñoom la fexe leen booloo seen bopp doon benn chaque weer ngeen di toog fi ngeen di waxtaan bu may ubbi leen bunt fu ñu bëgg a jaar daañ fa jaar incha allah ànd ceeg yéen lu ngay soxla di ngeen ko am incha allahu rabbi loolu ñu ngi ñaanal yàlla yëpp jàmm yàlla dafa ñëpp jàmm yàlla yëpp ñëpp sutura ñaanal aussi xalif lu euh, mu fallu ana fallu fallu aussi anamu ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax parce que nit ki aussi euh, doon kilifa aussi loo doonee kilifa dañ la jox kaddu rek mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci vraiment taxawaay biñ ci am eh, sawar nañ ci lool fallu mii dinaa ko ci gërëm bu baax a baax a baax a baax parce que lii nag moo ko coordonné guddi ak bëccëg di ko coordonné nit ñi di jokkoog man yi ji yokk yokku ji ñu koy gërëm bu baax yàlla yàlla taxawu ko yàlla yàlla taxawu ko ku ko gis xamal ni réerewuñu benn guddi mag ko ko keneen mais man sama diggante trail ba mel lay wax amul lenn loo xam ne dañu ci dem ba duma ko wax amul lii coordonné nañ ci ay yoon yoon moo Ousseynou bu ñu ba pare dañu jëlee wax yi yëpp ma ko ma ne leen di dem leen lu ngeen wax ànd naa ci nit ñi li ñu bëggoon nañ ko ji kenn ku ne la nga bëgg moom lañ la bëgg a jàppale jàppale gi Modou Mbour mi aussi doon euh, euh, communication bu central dañ koy gërëm bu baax parce que barki dem ba rek maag patan maag waa préception municipale yi juuti ci marché bi ne dañ koy yokk maag moom fa ma ne fa la ma fekk fa ma ma fekk kon nit ki buy liggéey bu baax da nga koy wax vraiment man am naa kontaan daal yéen maa ngi leen di gërëm bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ma ngi koy gërëm di ko sant eh, Massamba doomu Papay Diop aussi ñu ngi koy gërëm bu baax Massamba ñu ngi koy gërëm bu baax Ousseynou moom aw ma yàlla yàlla am fayam yàlla yàlla fay leen yàlla ñu am fayam fay leen yàlla yàlla fay leen wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu parce que dëkk bi mu tudd léegi ñëpp xam nañ ni c'est à presque cinq cent kilomètres du Sénégal de boo ko mënee jógee ñëw teew rek kon ñi nga ñëw teewal am na si ñoom yëg-yëg te yëg-yëg boobu maam am ci sama yaay yi toog fii bu ma leen waxee sama waajur ñenn ñi xam nañ ñenn ñi peut xamuñu ma mën nañ dégg tur bi mais mën nañ xam sama waajur mais marché bi man mii du ko fi gàtt ñu ne la kuy sa baay nga ne Alaaji Mbay Jóob grand maraîcher ñu ne kuy sa yaay nga ni Adja Ndeye Sarr dañ koy jooy te noppeeguñu waaw kon man ci marché bi laa bokk. kenn du la ci waaw kenn mënu ma cee génne. aussi bi yoo fi ñëwee maa ngi fi fekk samay frère Ousmane Pay Diop sama frère la moom xam na bu baax li may wax bu ko neexee suñ kër comme ni ko Fall waxee day dem dugg fa léegi joxe fa ay condition ci yëngu-yëngu àdduna moom dafa fidèle fii docteur Pape Amadou Ndiaye je le salue de passage li tax ma wax loolu sama waajur bu génnee àdduna dafa bàyyi lépp lu mu def ñëw ko sama waajur bu jigéen génn àdduna mu bàyyi lépp lu mu def ñëw ko te yorul sama numéro téléphone man yorul ma numéro téléphone mais bi mu ko yëgee Ousmane Beye wax ko mu jub teg loolu en tant que ministre de la République du Sénégal kooku nit bu baax la vraiment Ousmane mu nuyu ñu ko bu baax bu loolu weesoo aussi suñu président parti Thierno Alassane Sall bi moo ko yëgalee bis bi ne ko waa Marseille jigéen ñi Marseille dañuy wax te luy marché bi mu ma du fi ne damay nekk mais yow mi nekk Thiès na def délégation ak ne ko damay jóge Tamba mu ne ma lu ma mën di def rek jàll kon donc ñu ngi leen di jox tamit nuyoowu président Thierno Alassane sal te xam nañu tamit du gan ci marché bi vraiment tey faytu famille la du waxi politique du waxi dara fii famille fi toog ñëpp ku si nekk am na fu mu far mais bu ñu waree feetu rek ñun ñëpp dañuy ànd nekk fenn pour l'intérêt du marché parce que fii ku fi taxaw di wax intérêt marché bi moo tax nga wax marché bi nawet problème yi fi am ñun dañ koy yëg di ko xam luñ ci mën a régler fu ñu suñu moyen toll personnellement dinañ ko def problème courant ba municipal waxee fi samay moyen toll dama ko def ak leneen ak leneen leneen ak leneen bu ñu sañoon nag marché bi jafe-jafe yi ñuy am ñu jóge si metti na trop da ngeen di fay juuti waaye tamit ni ngeen bëgg a nekkee ñu wax ko mooy dëgg teewul parce que parfois court-circuit am court am fii yeneen am fi yeneen yeneen am dañuy ñaan yàlla incha allah ak changement bi war a am ci dëkk bi problème mu marché problème mu marché bi réglé problème mu Thiès réglé wu ci lii nag ñu jëm muy élection yi dañuy ñaan nit ñi rek ñu def jàmm ñëpp la dàqal tey Ousmane mii boole ñu fekkoon kenn du xam ba xam ci politique bokkuñu part dañuy capter demalante digalante loolu mooy àdduna ku si nekk am nga droit far fu la neex mais tamit nañ respecté choix nit ñi man ni ma xoolee Thierno Alassane Sall ne moom laa koy jàppale. ñeneen nan la xoolee keneen ne moom lañ koy jàppale mais nañ respecté wax wax ju rafet bañ a xas nit ki comme xas njiitam tamit mu mel xas sa njiit rek. Ah. après ngeen saagante wax lu ñaaw. li am solo mooy gëm li nga gëm dem ci nit ñi ne leen ki ma gëm lii mooy programme am nii la mel du ko yéeroo damaa bëgg ngeen fal ko boo convaincre nit ñi bu demee da lay voteel loolu lañ gëm ci la ñuy dox te dañuy ñaan yàlla élection yi jafe-jafe yi bari na Sénégal dëkk bi doxatul lépp taxaw na ndax élection présidentielle yi comme nag jàpp nañ ko le 24 nañ ñaan yàlla que le meilleur gagne ñun nag dañoo am candidat bu dëkk Thiès buñ sañoon tamit képp kuy doomu Thiès jàppale ko kuy xalam di fi jaayu waaw ñaari candidat Thiès ñoo fi am mais ñun jàpp nañu siñ bopp moom buñ ko jàppale dëkk bi dinañ si gis seen bopp Sénégal ñu si gis gis dinañ si gis seen bopp ñu ngi leen sant di leen gërëm ba salaam